ñuy wax ne président Sall dafa amoon mbébétu tas assemblée nationale bu ngeen ko joxoon doole yooyu tey ji coow li bëri lool ba mujj gi dellu na ci ginnaaw. xam nga loolu sax boo gisee euh, waa Pastef yi communiqué wuñ ci lool ndax dañ ko jàppee diversion ba léegi. Hmm. ndax ñun boo gisee ñuy bañ ñu tas assemblée bi par principe lañ koy bañee. Hmm. mais ñun assemblée bi ñu tas ko ak ñu bañ ko tas lañ yemale mais principe moo tax bëgguñ tas assemblée bi. Hmm. mais wér Pastef tey jii bu ñu ko tasoon deux mois ñu organisé élection Pastef bu fa nekkee vingt cinq député Boy Guèye dina fa quatre vingt cinq député kon loolu ñun ba ko côté boobu mhm. mais par principe ndax ku ci nekk gis na Macky Sall semaine yi ñu génn mu déclaré ne dootu nekkati candidature kon bu fekkee ne déclaré ne dootu nekk candidature ñun waxuñ mu génne loxoom ci politique Sénégal mais wóorta indi ay projet de loi yoo xam ne da nga gën a renforcer dooleem loolu lan mooy jubluwaay bi la kenn xamagul mhm. kon jàpp nañ ne Sénégal séparation de pouvoir dafay am kon mënuñoo d' accord Macky Sall indi loi boo xamante ni damaa jël la day day bëgg a tas assemblée bi mais du soxla sax muy consulter député yi

bi ñu wax sénégalais yi dil la dil la sénégalais yi ñu ko comprendre woon bëri na mais am na ñu ko comprendre woon mais tey lu bëri leer na mhm. ndax tey bi indee proposition de loi 87 bi ñu ci bëri bëri ci ñu waxtaane woon ci bi mhm. waaw ñu ci bëri ñu ci bëri ci ñoom rek mhm. ne woon nañ li bokkul la ñu woon ci bi kon indiwu ko fa kon am na leneen loo xamante loolu lay gën a préparé ka article 87 bi mooy sénégalais yi li nga xamante moo